moo xam fu quartier nekk en yi nga xam ne day drainer du monde souvent pour la journée moo tax ñu euh, fay euh, euh, li nga xam ne bi di génnaat dem feneen nga xam ne mooy poudre bi nga xam ne moom mooy tax fu doomu jàngoro nekk mu mën koo rey lii nag

waa service d'hygiène xamoon ngeen seen rôle nga xam naa ne xam sax bu ci corona corona corona virus coronavirus bi li njëkk ci li ma lay wax dal comme ko mënul bu di loxo loxo mooy euh, service euh, départemental de ginnaaw les daara ak les lieux publics tey nag ñu doon def saupoudrage ci biir ville de Kébémer mooy quartier ak fépp ñu ngi lay nuyu Bougar. waaw maa ngi lay fay Baye Malick di la sant di la gërëm bu baax a baax a baax di rafetlu bu baax a baax aussi liggéey bi nga xam ne bon ñu ngi koy def ak yéen. Euh, di remercier bu baax a baax aussi collaboration bi nga xam ne population Kébémer def nañ ko maanaam ci sensibilisation bi nga xam ne ñoom jëfe nañ ndigal yi leen waxoon maanaam mën a yombal liggéey bi bu baax a baax a baax. alors tey mën nga dikkaat ci liggéey bi jëm ci saupoudrage ak vi artère yooyu. waaw saupoudrage moom boo gisee ñu boole woon ko ci programme bi maanaam euh, ku ne coronavirus xam ne maladie la boo xam ne virus moo koy joxe moo taxoon euh, bi ñu newoon euh, dañuy désinfecté lieu public yëpp y compris service public yi service de l'état yi ak fi nga xamante ne mooy lieu de rassemblement mooy marché ak garage ak jàkka yi. moo tax ñu ne aussi da ciy baax ñu toftal te saupoudrage boo xam ne au moins na mën a euh, réduire la population vectoriel maanaam yooyeeg njanaaw yeeg yëpp luy naaw mhm. moo waral ñu toftal ci suuf poudrage bi pour au moins mën a compenser li nga xamante ni mooy mën a dajale euh, euh, ci ci quartier yëpp nekk ci commune bi donc quartier yëpp la loolu ci ñaata combien de jours wala benn jour rek ngeen koy def bon bu mënee nekk nag euh, mën nañu ko def tey mhm. tey ci guddi gi yëpp mhm. fekkee aussi xaw nañoo kii ñu bàyyi ko beneen yoon mais am naa ak déroulement li ñu ko commencé nii am naa yaakaar ne war nañu ko mën a def ci guddi gi balaa ñuy wàcc insha allah kon jàpp nga ne lii moom bokk na ci bokk na ci parce que tamit euh, euh, booy xool euh, ñi nga xamante nii daanaka Covid 19 daanal na leen. Mm. ba yàlla dogal ñu jaar fa ñàkk seen bakkan. Mm. am na ci ñoo xam ne dañu dañoo dañoo dañoo amoon yeneen feebar yoo xam ne dafa wuteeg Covid 19. Mm. mu ñëw rax ci kon gën na néewal seen doole. bu pare yàlla jël seen bakkan. kon aussi saupoudrage bi dafa doon opération boo xam ne opération de désinsectisation la. désinsectisation boo ko déggee mooy li nga xam ne yooyee yeneen yi nga xam ne day joxe yeneen feebar. kon maanaam bu ñu moytoo yeneen feebar yi balaa bii di agsi kon am maanaam aussi feebar bi même ñaari bi yaram yi bu agsee sax am maanaam mën na la bañ a bañ a bañ a ba bu yëgul yëgul la musiba ñu la gërëm la sant waaw kay baax jërëjëf merci beaucoup xamul di naan wala lekk fuñ fekk del seet mooy aaru waa ji gën wóor def bi noonu lay wàlle sëqa ci mbooloo nuyu si mbedd sa raxas sa loxo sax sa loxo laal bakkan bët di wàll nga sa bopp bul di fàtte gën nga ñëw raxas si ndox saabu eau de javel seet di la ko ci la bokk coronavirus am nay tegtal ci nit ki mu dal boo dee sonn di bool ak yax yu metti am jafe-jafe nooyi wala di sëqat lu bëri ak bopp buy metti bul di dem kër docteur mais na nga woote ci numéro vert yi ma lay jox gratuit wala 76 765 97 31 wala 70 717 11 92 MC Paco la aka docteur Rabi yal nañu yàlla musal ci coronavirus yaa